problème particulier ak ki nga tudd. ah si bien sûr. Euh, nga xam problème politique la jullit la may jullit yéenewuma ko lenn lu bon yàlla moo tax may wax man jullit la mais nag politique politique la aussi suma leader ku ko respecté wul du ma la respecté mais euh, damay wax ne xam nga fii plateau yu bari boo toogee dañ naan dañuy ragal Ousmane Sonko dañuy ragal lii dañuy def lii mais état du nit bay ragal. mais fu mu nekk man yéenewuma ko dañuy ñaan kay yàlla dindi ko ci jafe-jafe yoo ndax am na yeneen ñu amoon yeneen jafe-jafe yu ëpp loolu te bi yàlla dogalee ñu génn ci loolu génn nañ te terewul am nañ cër li ñuy ñaan mooy waxtaan am ko am bu dee nee reconnaitre nañu li mu def e, jéggal war na ci am aussi président Macky Sall ko wala yeneen mais yéen kenn lu bon. le fait que ñu disul Pastef euh, c'est xam nga xam nga nag. man jàpp naa ne waa yàgg nañ sax di surdu ñu Pastef parce que Pastef ah bon. waroon nañ ko def bu yàgg parti boo xam ne bu mu ñëwee sëriñ amatul orma leader politique amatul orma sérif amatul orma kenn du kenn baaxul yow parti bi rek moo baax wala ñi bokk ci parti bi kenn ñemewul wax journaliste du wax gis nañ fi micro yi ñu fël gi menacé ne tout le monde donc loolu du parti. parti dafa ban parti moo gën a moo ëpp woon président Wade opposé wu ak régime bi fi nekkoon mais def dafa doon def ak dal ak tey quand ak respecté surtout sëriñ yi euh, euh, euh, surtout sëriñ yi xaste saa waroon nañ ko dindi daal man li ma Aliou Wade balaa moo jël pouvoir bi gisoon nañ fi genre manifestation yi 88 c'était chaud 93 aussi c'était chaud bul wax ne loolu c'était chaud xam nga xam nga booy xam nga mun nga mun xam nga ay du yem ci bopp borom mun nga sabab lu mu ëpp sa loxo mais dégguñu ci Wade nañ rey wala sëriñ du dara wala c'est-à-dire que ko dégg fu dul bii pasti bu ndaw bii. ni ñëwee mais dañoo wax dañuy génn leen rey. tamit dem euh, euh, euh, cooki fin lan moo ko indi damay dem déloger nañ ko def lu ñu def Mobutu loolu fii rek lañ ko déggee quand même. loolu du parti.